إلا لا لا إله إلا لا فلا ينيم لا ينيم لا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 yaani moom la ila yaani moom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 muy doon bis boo xamante ni maanaam ren la ci ñeenteel bi yoon bi ñu koy def muy suñ quatrième édition muy bisub sëñ Cheikhouna naa ibnu sëñ na suñ Fall moom sëñ Modou Ablaye Fall Ndar moom maam Cheikh Ibrahima Fall làmp nga xam ne Cheikh Ibra moom jëmm ji nga xam ne Cheikh Ibra Fall ñaara dox ci digganteem ak Cheikh Ibra mu doon bis bu màgg bu ñuy def nag nga xam ne bañ ko dalee tàmbali na bañ ko dal bañ ko tàmbalee yàgg na lool manam bañ koy tambali tambali, ba suufe woon na lol. ren yalla sama borom taxawu nañu bam don doon bis bu bat mu bis yu mujjii ak yu ci yi ñu koy mujjé def yépp doon na bis yu kawé ren nak ñi ci woo jàngkatu ciess yépp ak tuddkatu yalla yi ne Cees yëpp ci ndigalu sëñ Cheikhouna Fall ibnu sëñ Modou Ablaye Fall ibnu mam Cheikh ibnu sëñ Ablaye Fall Ndar mun mam Cheikh ibrahim Fall Lamp mu doon bis bo xamanteni bis buñ fonk la lol di ci woo nag waa Cees yëpp bàyyiwuñ ben jàngkat bàyyiwuñ benn tuddkatu yàlla bàyyiwuñ jàngkatu alcorane ndax manam buñ xeyé bis ba la ñuy def moy wacce kamil yéene ko maam Cheikh Ibrahima Fall yéene ko sëñ Bamba yéene ko mboolem njabootu sëñ Bamba ak Cheikh gi buñ ko doxalee noonu ba doxal ko noonu ba ca bëccëg ga ba ca bëccëg maanaam day doon bis day doon bernde yu yaatoo yaatu yoo xamante ni dañ koy waajal ci bis bi nga xam ne loolooy farata mu doon bernde yaatoo yaatu yoo xamante ni maanaam ay mbana la ñuy teg pour pour berndeel ko jaam ñi rek ndax boo déggee safar looloo ko waral maanaam dana am ndékki ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dana am añ ci kàttanu yàlla ak mbaaxam te it reer yi moom maanaam dana doy lool ci kàttanu yàlla ak mbaaxam muy doon suñu mébét maanaam ñi ñi ci woo ñëpp nag ndax bàyyiwuñ ci kenn ci ndégalu sëñ naa Fall mii nga xam ne mooy jëmmi sunu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baawul Muridoona moom nag moo woote woon tey woote bi nag dara warulu ko lu dul bis bi la bëgg mu yaatu ndax lu baax boo koy def danga koy yaatal waaw lu baax boo koy def da nga koy yaatal doo làqatu sa ruq rek di ko ca def ndax maanaam yàgg nañ koo def mu yaatu lool mais ren nag li tax ñu yaatal ko danoo bëgg mu gën a yaatu maanaam bis bi nag mi ngi nii ñu ko woo nañ ci ñëpp waaw yoo ci ñëpp sunu yaay booy yi dañ ciy war a jël kàddu am na nag ñu ci war a jël kàddu seen biir léegi nag dañuy jox sunu waajur yi mu jël kàddu barkeelu ci bis bi auzu billaahi mina seytaani rajim ñu ngi leen di nuyu yéen mbooloo mi di sëñ ci barkees lépp ndax sëñ Moustapha moo tax ñu def lii safar gi nag daan nañ ko def at yëpp waaye ren nag moom da ci rawati lépp ci ndigalu seexu naa faal mii ñu ngi woo ñëpp nag bépp tarixa ñu ngi leen di woo bépp tarixa nag ñu ngi leen di woo bàyyiwuñu kenn yëpp ñëpp na ñëpp ñëw ñu safar ko ñaan ci yàlla suñu borom fekke ko at yu baree baree bari bari te ñaan boroom kër gi nga xam te ne fi la ñuy defee lépp at mu ne fi la ñuy defee lépp lu ñu def fi lañ koy defee mu yaatal ñu yàlla wéral ay cëram yal nañ ko ñaanal yàlla moom tamit yàlla wéral ay cëram lii nañ ko daje at yu bëree bëri woon nañ ñëpp nag bàyyiwuñu benn tarixa ci barke Cheikh Ibrahima Fall ñëpp la ñu woo seexu naa mii ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla bàyyi ko fi ba suñu kanam a kanam a kanam li muy liggéeyal maam a Fall yal nañ ko yàlla yal ko yàlla fayal woo nañu mbooloo mépp ci barke Seydina Muhammad ba ma jullee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant sama ñaari waajur di sant maam Cheikh Mahi Fall maam borom Touba di sant sëñ Cheikhouna faal mi di sant te gi suñu xale yi nga xam ne moom la ñuy tiitaroo moom la ñuy sagoo ndax lii kat sag la si koñ bi léegi nag suñu safar gi moom la ñuy organiser le 3 septembre ñu ngi koy def tey jii fii Sampaate 2 waaw si ginnaaw lycée ëmb Ndak Seck waaw léegi nag maa ngi soññ nag sama mborom jigéen yëpp na yëpp maa ngi leen di sonj wallaahi ñoom ñëpp si bis baa nañu génn jàpp bi taxaw ko comme ni ko daan taxawee waaw yàlla nañ dugg ak bisimilahi rahmaani rahim gën seeg alhamdulilahi alamin jërëjëf jërëjëf sëñ Touba jërëjëf maam Cheikh Rahim Fall ahousubilahi mina cheytaani rajim bàkki borom Touba jaaraam ñoo ngi nuyu mbokk taalibe yëpp di jiital si nuyu suñu Cheikhouna Fall ibnu suñu Modou Laye Fall Ndar di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di jiital di nuyu ñëpp ñu fi nekk ñëpp xanaa di jàllale programme rek bis bi ni muy demee incha allah rabi di 9 ba 12h incha allah rabi dañuy def jàng jàngu alxuraan bu ñu weesoo si loolu noonu 12h ba 14h ñu def berne yi incha allah rabi bu tisita jotee incha allah dañuy def marche marche bu mag boo xam ne dañuy wër fépp wane ni ñun dañuy sant sant sant Sëñ Tuubaa ci bisam bii nii bu jaalee si loolu 20h bu jotee mise en place bi des invités invités yëpp incha allah rabi. vingt heures trente prestation kuréel yi tàmbale ba vingt deux heures cérémonie officielle bi tàmbale bu ñu paree nag zikrullah une heure matin moo koy tëj si bis nag ñoo ngi woo waa kuréel Nuuru ni ak waa kuréel Tasawudu Suxaar ak waa Fatul waxaab ak kuréel lant ñoo ngi leen di woo Taysiru Asir ñoo ngi leen di woo Miftaaxul Nasir ñoo ngi leen woo Fatul Wahab bu Cité Senghor tamit ñoo ngi leen woo bis nag ñoo ngi ci woo waxtaankat bu mag boobu noonu Serigne Fallou Gueye di rakk Serigne Gueye ñoom ñoom ñaar ñëpp woo asalaamaaleykum wa rahmatullah antal karimu anal fii ka sanaay antal karimu anal xadimu dëhran udimu fii ka rumtum tida yonti fala yak fifti da mahalanaay inni bi madi ayan turibhi xatxan wa nuji mahal binaayi lakin ajastu amal tamasu wa ma madatu kanu balaayi xarami daadi arafu adi an madi adi lil buddalaayi